li nga xam ne nag moom di ëpp chroniqueur foofu le nag daal ne yëkkati ay kaddu jëmale ko ci li nga xam ne nag moom moo di patron di Bougane Gueye dani moom nag la moo xam le moo di Eh, kii di Bougane Gueye Dany daal jot na mu jël yoonu boppam ngir def li nga xam ne nag moom mooy eh, ay mbiri boppam pa muy topp ci ki nga xam ne nag moom moo di Ousmane Sonko mu def mu daal di koy def waaye itam bu annoncé li nga xam ne nag moo di conférence de presse mu daal di annoncé waay itam eh, li nga xam ne kii di Bougane Gueye Dany daal mi ngi koy def nekk na loo xam ne lu ñaaw la moom daal la mu bëgg mooy Bougane Gueye Dany daal jël yoonu boppam incarné rôle boppam waaye itam fas yéene def yëfi boppam bañ a topp ci ki nga xam ne nag moom moo di Ousmane Sonko bu fekkee ne moom dafa bëgg a wax ni li nga xam ne nag moom moo di leader politique la faw mu indi ay yëfi boppam waaye itam carrière yëfi boppam fas yéene jàmmar ak li nga xam ne nag moo fi nekk waaye itam nee na daal fi mu d'accord rek ki nga xam ne nag moom moo di Bougane Gueye Dany ci loolee nga xam ne nag wax na ko jëmale ko ci li nga xam ne nag moom moo di inondation yi amoon foofu ci diwaanu Touba jamono ji nag mel na ni mbir yu ne mel yu ci ëpp daal dinay saafaraw